أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين القائل في محكم تنزيله وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام الخائل ولكل جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وحامل لواء الحمد سيدنا محمد المكين الخائل العلماء ورثة الأنبياء والرضوان والرحمة والنور المتلازم المتزايد على غوثنا وغيثنا وغياثنا وغنيمتنا الشيخ أحمد بمبا رضي الله تعالى عنه ونفعنا ببركاته الخائل خرجت يوم السبت الثامن عشر لخدمة المختار في شهر صفر الخائل وحجة لمن بضعف ارتدى وحجة على مخالف غدا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokki M-Media groupe Nuuru Daarayni ñu ngi sant yàlla subhaanahu wa taala di julli jonantem boobu sallallahu alayhi wa sallam di ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu nungul ñu suñu jaam yàlla jéggal ñu suñu rëcc rëcc te di ñaanal al cheikh Mouhamadul Muntaxa Mbakke al xalifatul aam taaifatil muridiyati yàlla dolli ko kàttanal dolli ko wér ak fekk ak tal ak jàmm ba lim bëgg a liggéeyal maam xaadimu rasul lépp mu mën ko ko liggéeyal bi jaahi sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam tanu ànd ko ak moom di leen niyu néew boobu yi di jiital ci néew bi suñu sëriñ suñu wasila suñu kilifa al cheikh abdul ahan mbakke waaye tamit di siyaare mboole mbokk yi nga xam ne yëpp ñu ngi ci biir groupe bi di leen ndokkeel bu baax a baax ci weeru tedd bi nga xam ne wi mooy shahru safar ñu koy wax safarul xayri nga xam ne léppam aw yiw la ñeel ab julit rawatina ñun taalibe yi nga xam ne yii yàlla danoo defal tawfiix ñu ànd ak Cheikh Ahmadou Bamba mu nekk suñu wasila ñu di leen niiw niyo boobee di leen ziyaare di ziyaare mbokk yépp nag di ziyaare suñu mag sëriñ ndiir di ko ñaanal moom itam yàlla gën a dëgëral taxawaayam bu baax a baax ñu di ko sant bu baax a baax ci taxawaayam ak ak yittewoom liggéey bu sell bii nga xam ne bii moom la ñu yàlla boole te it di ko wax ñoo ngi dolle sant bu baax a baax ci soññ bi nga xam ne bii moom la ñuy soññ rek saa bu yëkkatee kàddum ci biir liggéey bi ñu dolle ko bu wàcca bu baax a baax rawatina ñaan yu am solo yooyu nga xam ne yii moom la tàbbal keroog ci groupe bi bi nga xam ne bii soxna soosu yàlla dem dagalu na mu dem ba sax mu joxe ci ñaanam yu am solo yooyu nga xam ne yii dañ ko jagale ñi nga xam ne ñii dañoo nekk ba sax ñu dolle ko ci bu baax a baax te it gën koo jàpp gën koo fas bu baax a baax a baax ndax ñoom ñoo ñi nga xam ne ñi barsax lañ ne kat ay ñaan dong mën nañ ne moom lañu fi dese kon luñ leen mën di ñaanal rek ci loo xam ne lii ay tawféex yu leen di fekk foofee ca barsax boobee loola ñaan googu doyut kon yal na yàlla nangu ñaan yépp di gën a dëgër a taxawaay yi waaye noonu la ñuy defit di jàll di siyaare sëriñ Massamba Faye borom Hikmatul Yawmi nga xam ne moom itam émission bu am solo boobu mu nga xam ne mi ngi koy def ci biir liggéey bi rawatina nag jamono yi nga xam ne yii ñoo ngi ci biir safar bi ñu jooyal xikma boobu léegi daanaka jëmale ko ci safaru tey mooy li nga xam ne yii ñun ñëpp ci lañu war a taxaw fi mu ne sunu mbir yëpp wax dëgg yàlla fi mu ne dañ ko war a jëmale ci safar bi ndax mooy weer yi nga xam ne bii mooy sunu xebliku tey ak ëllëg mooy suñuy xéwal tey ak ëllëg kon ñun ñëpp dañu war a suba bu ñu xëyee rek maanaam di safar ba kere nga xam ne dañuy àgg ci bés cant ba di ñaan yàlla mu àggale ñu ci ak dem ak fekkental di jaay siina muhammad sallallahu alayhi wa sallama noonu la ñuy def it di jàllale nuyoo bi ci oustaz góor gi Diouf moom itam di ko ndokkeel bu baax a baax ci taxawaayam ci liggéeyal islaam liggéeyal sëriñ bi nga xam ne saa boo ko gisee rek wala sam xel dem ci moom rek da ngay gën a soññuwaat da ngay daal di gën a góorgóorluwaat bu baax a baax waaye tamit di siyaare mu du ngom ñing mi nga xam ne nii moo sos liggéey bu sell bi nga xam ne bii dañ cee nekk di ci jéem a góorgóor di ci liggéeyal xaadimu rasul te saa su ne moom itam ñuy gis farlu bu mu ci def ak yittewoo bu mu ko yittewoo ak bëgg boo xam ne gi bëgg na ko liggéey bi mu jëm ca kanam ñu di ko ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla gën a dëgëral gën koo jàppale ba lépp loo xam ne li bëgg na ko liggéey suñ bi rek ci liggéey bi nga xam ne bi moom la ñu seq te mu am solo lool ñu seq ko mbokk yi yàlla defal ko jàll kowe njor bi tanu jàppale ko di ñun ñëpp bokk ko ak moom di jëy seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye tamit ñuy siyaare suñu jarbaat suñu xarit bu baax muy sëriñ Moodu Diouf boroom alquranul karim nga xam ne moo jiitee wàllu liggéey bu am solo boobu nga xam ne bi waar wu yaatu yaatu la ci biir liggéey bi gën cee am solo muy njàngam alquran yi mu jiite ko moom itam taxawaay bi mu ci taxaw ak yittewoo bi mu ci yittewoo bëgg lu baax ñoo ngi koy ziyaar moom itam di ko ndokkeel ak sëriñ Mbay Diouf moom itamit moom itamit njàngale mu sell mu leer bi nga xam ne mii moom lay indi ci biir groupe bi mu am solo lool ñu di ci dolle bu baax waaye noonu la ñuy defee di sant bu baax a baax al oustaz xaadim ñing moom i tamit ak ak mboolem jàngalekat yi nga xam ne yi ñoo nekk ci biir liggéey bi yépp mel ni ak cheikh abdul ahad mbak ak cheikh abdul ahad ndiaye ak cheikh abdul ahad diop ak cheikh njaay ganna taxawaay bu am solo bi nga xam ne bii ñoom itam ñu ngi koy taxaw ci biir liggéey bi waaye itam di ziare Pape Babacar Ñing ak suñu xarit Mbay Coro Diouf ak Abdou Diouf Mayib moom itam ndeysaan ku farlu ci jàngal alxuraan bi la waaye tamit ku yittewoo liggéey bi la ndeysaan di ci taxaw bu baax a baax a baax waaye tamit di sant bu baax sëriñ Murtada Badiane moom itam ndeysaan ci njàngale mu teey ni ak leeral yu am solo yi nga xam ne mu ngi koy def ci leçon yu am solo yi nga xam ne yii moom la fi mbokk yi di jàllale waaye tamit di ziare suñu xarit suñu soppee Habib Ñing moom itam oustaz moom itam ñoo ngi koy ndokkeel bu baax a baax ak Serigne Mbaye Diagne ak Moustapha Thiaw Bassirou Faye Jaga Thiaw ak Xaadim Diop moom itam Xaadim Diop suñu Xaadim Diop xam nañ ko xaw a gëj a dëkk lool ci liggéey bi xam naa yitte jamono ji rek waaye tamit noonu la ñuy def di ziyaare tamit suñu xarit Saalix Njaay moom itam ak yittewam liggéey bi ñu ngi koy bàyyi xel bu baax ak Maam Góor Diouf waaye tamit di sant mboolem soxna yi nga xam ne yi ñoom yi tamit dañoo ànd ak ñun liggéey bu sell bi ku mel ni soxna Astu Diop di waajuru suñu xaadim ñu ngi oustaz ñaxam waaye tamit soxna koo liggéey seen ak yittewoo liggéey bu baax a baax a baax di leen ci sant bu baax a baax waaye ak soxna astafay ak dégéen bi ak satu Diouf ak xadi ñang ak jaal jon ak soxna cubba njaay borom fatwa bi ñoom ñëpp ñoo ngi leen di ziyaare bu baax a baax di leen ndokkeel ñaan yàlla dolli leen defal tawfeex bu baax a baax ci seen yittewoo lu baax bëgg lu baax waaye tamit jàpp goo xam ne gii ñu ngi koy jàpp ci liggéey bi nga xam ne bii moom la ñu yàlla boole te nu dool war cee gën a dolle sant yàlla bu baax a baax a baax ndax liggéeyal sëñ bi moom mooy liggéeyal islaam mooy liggéeyal yonente bi mooy liggéeyal yàlla kon lépp mbooloo moo xam ne nii dañoo dajoo daje nosu ci maanaam nañu liggéeyal sëñ bi te it teg ko ci am nos bu jub bu aw yoon boo xam ne bii maanaam ku ci nekk boo bokkee ca liggéey ca biir groupe mbooloo mooma rek maanaam mën nga ca am waar woo xam ne bii mën nga koo taxawee loolu lu am am solo la kon ñu yàlla defal tawfiq daal ñu nekk ci biir liggéey bi ñoo ngi ziyaare ñëpp ñiñ ci xam seeni tur ak ñiñ ci xamul rek ñi ñu ñi ñu tudd seeni tur ak ñi ñu tudd tudd seeni tur yëpp daal góor ak jigéen ku mu ci mën a doon rek xamal ne maanaam ñoo ngi lay ziyaare ziyaare boobu yi di la ndokkeel di ñaan yàlla subhaanahu wa taala weeru sell wi nga xam ne yi moom lañ dugg yàlla may nu ñu teereel ko ay at yu baree bari te saa bu ñëwee rek ñu gën a am kàttan ak xiwal ak wér ak fekk tal goo xam ne gii dinañ gën a mën a taxaw ci sant la ci Cheikhul Xadim ni nga xam ne nii moo la bëgg maanaam ñu di ko ca sant lee ci xiwal yi nga xam ne yii moom la ko yàlla defal ci weer yu nga xam ne bii moom la ñu nekk te it nañu xam ne weer yi mën nañu ne maanaam mooy sunu xéwal adduna ak alaxira te mooy sunu jotu sunu gore adduna ak alaxira kon lépp loo xam ne lii dañ ko doon def ci jaamu yàlla rek dañoo war a góorgóorlu yokk loolee gën ko sellal gën koo baril waaye tamit lépp lu mu doon mooy jëriñ mooy dugg ci loo xam ne am sama lay loolu dañ ko war a gën a daw bu baax a baax di ko dénk suñu bopp di ko dénk ñëpp kon day ñoo ngi jéggalu bu baax a baax ci émission bi jàll muy fatwa ba de jàll muy dimanche bee fekkan nu ci ay xat-xat lool ak yittee jamono ju bari ji rek muy jéglu bu baax a baax ñàkk a jàllale ko nga xam ne bii moom lañu ko ñàkk a jàllale waaye dafa fekkan rek dañoo nekkan ci lépp doon ci waaru sëñ bi muy guddi googu ñu doon màggal rek di ko màggal Cheikh Abdoul Ahad Mbacké muy bëccëg ba guddiyee yëpp daanaka ñu nekk ca ba tax na bi ñu xëyee daanaka ñu xaw a am coonaay ñàkk a mën a taxaw ca liggéey bu baax a baax ñu ngi jégalu kon tey wala ñuy dugg ci fatwa yi comme ni ko jëwriñ ji sàkkoo muy fi mu ne nii maanaam dana war suba bu ñu xëyee nekk di safar kon ñoo ngi sàkku ci bopp yi daal suba bu ñu xëyee nañu fexe ba am koo xam ne bii dina ñëw dugg fii ci groupe bi defandoo ak safar kon tey incha allah may dem li may bëgg rek mooy barkeelu ci bala ñuy dugg ci fatwa bi muy tontu laaj yi ñu def safar tuuti rek loo xam ne lii dañ ci soññat sunu bopp soññat ci mboolem mbokki taalibe yi réew yëpp muy lenn loo xam ne dañ koy leeral mu jëm ci wàllu màggal gi nga xam ne gi moom la ñuy jubal te sunu lépp nekk ci sunu njëriñ àdduna ak alaxira su ko defee buy xool li nga xam ne lii mooy màggal gi nga xam ne gii moom la sëriñ bi ne ñëw leen santale ma ci sama boroom loolu lu wér a wér la lu firndewu loo xam ne lii booy xool aaye bi yàlla wax ci alxuraan muy wa azzin fi nnaasi bil hajji yatuuka rijaalan wa ala kulli daamirin yatina min kulli fajjin amiqin yàlla dafa waxoon sirina ibrahima ne ko na nga ma wool nit ñi ñu ñëw aj si makka maanaam kaaba ga nga xam ne bii moo nekk makka te mooy li nga xam ne lii moo gënal yàlla ci kaw suuf moo yàlla wax sirina ibrahim ne ko na nga woo nit ñi ñuy ñëw ci kaaba googu ñëw di ko aj si maanaam di ko ziyaare si nga xam ne aj googu maanaam benn ponk la doon farata ci jullit boo xam ne bii mën nga ko ci sa dund moom nga war koo mën a defi dem makka def ko fa benn yoon dafa waxoon sirina ibrahim ne ko na nga woo nit ñi su ko defee nit ñi dinañ la wuy si dina am ñoo xam ne ñii dinañ la wuy si te wuy si gañ lay wuy si ñëw di ñëw ci kaaba googu di ko ziyaare si di ko aj si ne ne yaatuuka rijaalan am na ñoo xam ne ñii jege nañu kaaba ga ba dañuy dox ñëw ci kaaba gi ñëw aj si ko wa ala kulli daamirin waaye itam am na ñoo xam ne ñii sori nañu soriwaay boo xam ne bii maanaam dañuy am ay warukaay yoo xam ni moom la ñuy war di ñëw ca kaaba googee waaye nag min kulli fajjin la ñuy jógee maanaam ci bé côté bu mu mën a doon rek fu mu mën a doon ci adduna xebla ku mu mën a doon rek ne ne maanaam noonu la fay demee day am ñu koy jege ñoo xam ne ñi jege nañu jege ñekk dañuy dox ñëw ci kaaba gi waaye am na ñoo xam ne ñi dañoo sori sori waaye dañuy dugg ci loo xam ne li dañ koy war mu ñëw indi leen ci kaaba googee waaye nee nañ ñëw googu yi ñu ñëw ci kaaba ga nag dara jëriñu dara du sababu ko lu dul la ca yàlla namm mooy ay njariñ yoo xam ne yi maanaam ñun rek la ko jagaleel ñun jullit yi ngir ñu mën a def ponk boobee ca béréb bu sell boobee ndax dafay wax fi ne li yashhadu manafia lahum ngir bu ñu ñëwee ci béréb boobu ñu seere fa gis fa ay xiiwal yoo xam ne yi man yàlla maa leen ko defar defal wa yazkuru smallahi fi ayami maalumatin tey buñ dajee foofee ca kaaba ga doon mbooloo dañ fay gën a fàttaliku di fa tuddaat di fa jaamu yàlla jaam gu gën a mag gu gën a bari gu gën a firndéew gu gën a takku nga xam ne dañ ko fay def ay bés yoo xam ne yii bés yi ñu xam la mu nekk yu limu yoo xam ne yii mbooloo mu baree baree bari ñoo fay daje di tudd yàlla di jaamu yàlla façon xeeti jaamu yàlla gu nekk ngir loolu ñu koy sant yàlla alaama razaqahum min bahimatil an'am nee na loolu nag ñuy boole ci jaamu yàlla googee di ko ca sant cant koo xam ne gii bokk rajo lañ koy sant mooy xéwal yi nga xam ne yii moom la moom la ñu defal te bokk ca muy jur gi nga xam ne gii yàlla da ko daganal ñun jullit ñu mën koy jëfandikoo di ko lekk doon ay xéwal yoo xam ne yi ay bernde lay doon ne ne loola bokk na ca la nga xam ne lii buñ dajee foofee bokk na ca la nga xam ne lii moom la ñuy sante yàlla kon bu ko defee màggal gi nga xam ne gii moom la sëriñ bi woote ne ñëw leen sant li ma ci seen sama borom gis nga kon kon day daal di méngoo booy xool aji màkk boobu ngay ñuy dem di ko aji màkk ndax booy seet lépp noo xam ne ni maanaam moom nañ koy defee foofee ca màkk rek ca demin wa ñuy dem ak maanaam nekkin wa nga xam ne moom la fa suñ ba soxla te mooy nekk fa di jaamu yàlla ak di moytu lépp loo xam ne ni moom la yàlla tere noonu ñu koy defee ca Kaaba ga ca Makka booy xool it nii noonu la ko sëriñ bi bëggee fii ci Touba gi nga xam ne gii fa la ñu woo ngir ñu daje fa ngir dolli ko sant maanaam santle ko ca xewal yooyu nga xam ne yii moom la ko yàlla jagleel ci bésab tukki boobu nga xam ne bii moom la jógeen fii ci Sénégal war a dem ca réew yu sore ya nga xam ne yi noonu ñoo ne ñoo ko fa yóbbu fekk na ay xewal la yoo xam ne yàlla da koo dëxañ nëbb ko ci biir dox googu kon loolu tax booy xool aj googu ni mu méngoog màggal gi loolu taxan sëriñ bi daal di ñaan boromam ne ko màggal gi kon ku koy ma ciy sant rek maa ngi lay ñaan mu doon ak aj ci moom bu fekkee ne dafa tële ba mënta dem Makka waaye tamit képp koo xam ne bii dafa weddi xéwal yi nga xam ne moom la ma yàlla defal ci bés bi ba ma di ko ci sant ne ne koo kee ko weddi su bis penc ba na doon aw lay woo xam ne bi maanaam day nekk ci kaw maanaam doonam maanaam ak jaaxle lay doon ci moom boobaa ndax day xam ne màggal gi cant gi ñu ci sant lu wér a wér la mu di fa rëccu lu ko fa neexut loo xam ne lii moo ko fay dikkal nekk aw lay ci koom nga xam ne lii du am lenn loo xam ne lii moom lay mën a laye kon mbokk yi nanu xam ne màggal gi doonul loo xam ne lii sëriñ bi da koy làmbatu maanaam di ko làmbatu noonu rek maanaam te amul fenn foo xam ne fii moom la moom la ko fa la ko teg maanaam bu ñuy xool ci alxuraanul karim alxuraan tudd na ak màggal buy yàgg yàgg yàgg ndax gis nga aay bi ne ne wali kullin jaana wali kulli ummatin jaana man sakan li yazkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil anam yàlla dana xeetu mu mën a doon wu ne defal na leen ak xeetu jaamu yàlla koo xam ne bii dama leen ko jagleel ngir ñu di ko jaamoo yàlla di ca tudd yàlla di ca sant yàlla ngir li ma leen xéewale ci jur goo xam ne gi jagleel naa leen ko ngir ñu di ko mën a jëfandikoo kon gis nga ko booy xool pernde yooyu muy wax ci màggal nga xam ne daanaka bu ñuy xool moom lañ ci gën a bàyyi xel ndax sëñ bi noonu maanaam li tàmbalee ci ginaar ba ci giléem bu ma ci kenn xeebal dara bu ma ci kenn nawal dara maanaam dane lu mu néew néew yow loo ca mën a jëfandikoo ci wàllu xeeti jur yooyu na nga fexe def ko ca bés ba te yàlla tax waaye tamit lu mu bari bari loo no- boo ko manee nga mën a wut aw nag wala nga wut ginéew wala lu ko ëpp lu mu mën a doon rek maanaam ne ne loolee na nga ko ko defal ci bés boobu ngir mooy li gën a am solo ci cant gi nga xam ne gii moom la ñuy sant yàlla su ko defee gis nga kon daal di ne fa ilahukum ilahu wahidun fa lahu aslimu wa bashiril muxbitin daal di ne na ngeen xam ne nag seen borom mu yàlla kenn dong la kon na ngeen ko jébbal seen lépp tey ñi nga xam ne ñii dañu koo gëm jébbal ko seen lépp yàlla wax Muhammad ne ko ñooñu na nga leen dégloo kon gis nga yàlla nga xam ne moo doon jenn jëmm joo xam ne ci kenn la te maanaam moo mën lépp moo sañ lépp te moo xam lépp di def lu ko neex kon gis nga bi sëriñ bi ne maa ngi lay ñaan màggal gi ku ma ci jàppale ci sant yàlla ni ma ko bëggee su tëlee dem Makka ngir aji nga defal ko ko nga defal ko yool ba ku dem Makka di am gis nga yàlla mi nga xam ne moom moom lépp te digganteem ak sëriñ bi am ay mbóot ay secret yu baree baree bare yoo xam ne jaana seen diggante kon bu ñaanee loolu yàlla war nañu am yàqin bu wér a wér ci ngi ci ne ñaan googu yàlla nangu na ko muy màggal bésam bii sant la ko ci yàlla te nam ko bëggee day daal di méngoo ki nga xam ne kii am na euh, bëgg na dem Makka aji waaye amul kàttan nga wala man nga ngir dem Makka su ko defee na ne ñi nga xam ne ñi nag mooy ñi ñi ragal yàlla te di ko jaamu dëgg dëgg ne ne nan la ñu mel mooy na ne allazina ida dukira allah wajilat xulubuhum mooy ñi nga xam ne ñi fu ñu tudde yàlla rek seen xol ya daal di jàq waaye itam dajee bokk wasaabirina ala ma asaabahum ak ñi nga xam ne ñi lépp lu leen dal ci loo xam ne lii lu yàlla dogal la ci ñoom loolee dañ koy muñ wal muqiimi salaata waaye tamit da cay boole ñi nga xam ne ñi fu ñu nekk julli gi nga xam ne gii farata la ci ñoom dañ ciy taxaw gën ci taxaw di ko joxe wa mimma razaqnahum yunfiqun waaye itam bokk na ci ñooñu lañuy seen mandarga mooy lépp loo xam ne lii wërsëgalaale na leen ko ñoom dañu ma koy dañu koy def ci foo xam ne fii fu ma neex la kon gis nga booy xool màggal gi nga gis ne lañ fay jàng ci alquranul karim waaye itam lañ fay jàng ci ay xasida lañ fay jàng ci lañ fay def ci ay julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lañ fay def ci ay istigfaar nga xam ne day dem ba géew yooyu soo ko dee teewee maanaam sa xol boobu day teew nga gën a gëm yàlla gën a bëgg sëriñ bi gën a bëgg lu baax gën a jublu ci lu baax mooy ida zukirallahu wajilat xulubuhum waaye itam dañuy muñ ci lépp loo xam ne lii da leen di dal ci loo xam ne lii xañ na lu leen neexut la waaye tamit ñuy góorgóorlu ci di taxawal julli waaye tamit di góorgóorlu ci lépp loo xam ne lii moom la ñu yàlla xewale maanaam ñu di ko def ci fi nga xam ne fii moo neex yàlla kon gis nga loolu mooy ak màggal kon bu ñuy xool màggal gi soo koy méngale ak aj gee maanaam dañuy doon benn rek tey ñu xam ne sëriñ bi diggam ak yàlla digganteem ak yàlla yàlla defal na ko loo xam ne lii moom rek moo ko xam kon ndax dafay wax ne xawlastu masdina an dafatiri fala takun an xidmati bi fatiri sëriñ bi ne ne sama boroom xamal na ma mokkale naa ci sama boroom loo xam ne di kenn du ko bind ci ay kayit kon ne ne yow mi nga xam ne nii sama taalibe nga yàlla defal la tawfeex nga ne bul taayil mukk ci di ma liggéeyal kon nag jéem yàlla may na ko diggam ak maanaam yàlla may na ko loo xam ne lii maanaam rëy na màgg na ba mën naa am bu doon lu feeñ maanaam loolu dina ëpp xelam doomu aadama mu ne yàlla may na ma loo xam ne lii kenn du ko bind ci aw kayit kon bu ne aj mag màggal gii maanaam ku ko màggale ni nga ko war a màgg di nga ci am yool bu toll nii ka nga xam ne gi dafa dem màgg aju kon loolu war nañ koo mën a jël mu ko bu baax a baax a baax kon ba tey ci safar gi rek safar gi moo yaatu yaatuwaay boo xam ne bii maanaam boo ci xasee dugg dal comme ni ko Massamba fay wax rek faaw nga xaababal da ngay dem ba doodoo ci mën a yemale sama ko dëgg-dëgg fa nga bëgg na yem waaye lépp ci safar gi rek ñëw di ci barkeelu bu baax a baax a baax kon dañuy war a xam ne li ma waxan fee léegi ne màggal gi moom sëriñ bi lamtu ko te it li tax mu ne bés bi muy bi ñu koy génne muy dem moom lañ màggal dafa da ko leer nañ ne moom mi ngi dem waaye day dellu si waat te it laataa muy dem xam na li nga xam ne lii moom la ko yàlla defal ci biir dem googu nga xam ne gii moom lay dem ndax dafa daal di wax ne sababu ghaybatiya anna allaha araada an anaala minhu jaha wa an akuna shafian li xawmi wa an akuna xaadiman fi dawmi gis nga ne ne daal lii sababas sama génn gi nga xam ne gii moom la ma noonu yi génne ngir ne dañ may yóbbu ca dëkk yu sore ya ca réew yu sore ya ne ne loolu yàlla da daf ma ca bëgg ñett yàlla da ca namm defal ma ci yett yoo xam ne yi bu ci nekk ay xewal ya ay xewal la yu rëy rëy yoo xam ne yi maanaam maa ngi koy amee ci tukki googu ba ci jëkk mooy araada an anaala minu jaaha ne ne ba ci jëkk mooy yàlla dafa namm ci dem gii may dem maanaam ma am ci daraja joo xam ne ji maanaam jenn daraja doodu tolloo ak moom waan akuna shafi'an li xam yi waaye tamit da ca bokk bu ñu demee ba bés pénc ba jaam yépp teew ba yàlla atte jaam yi bañ nekk ci ay njàqare ak i diis ak i ñitti képp koo xam ne kii toppan nga ma fii ci àdduna di def li may digle di bàyyi li may tere su booba ma daal di taxaw ci sama ka sama kanam boroom daal di ko fay ñaan mu ràmm la nga dem ca xéewal ga daal di tàggoo ak njàqare ga ñetteel bayit mu ne wa an akuna xaadiman fi daw mi ne ne it bokk na ci xéewal ya muy yàlla dafa namm feeg àddunaa ngi dem maanaam man nekk koo xam ne kii maay liggéey xaadimu rasul defe naa foofu mu mujj daanale ci ñetti xewar yéen wax ne moom la ko yàlla dëxëñal ci dem gi nga xam ne gii moo la doon dem ci géej ga defe naa maanaam wa an akuna xaadiman fi daw yi suba gun xëy lay gën a firndewu ndax defe naa jamono yi nga xam ne dafay nekk ci zahir ñun di ko gis muy liggéeyal muy liggéeyal Seydina Muhammad yaakaar naa bi mu fi jógee ba léegi suba gu ñu xëyee liggéey boobu day gën a yokku ndax yàllaa ngi gën a baril doomu aadama yi waaye tamit di gën a baril ay jëmm yoo xam ne yu ubbi na seen xol def ci ak leer ba xam ne moom la ñu gëm doon ay taalibeem di ko jàppale ci liggéey boobu saa bu ñu saa su nekk kon gis nga ko liggéey boobu nga xam ne bi moom la ñu liggéey bi mu fi nekkee ba bi mu fi jógee maanaam gisatuñ ko ci zahir ci la gën a dëgëre ci la gën a bare ci la gën a takkoo ba tey ñàkka làmbatu dem gi danoon xarajtu yowma sabti thamina achar li xidmatil muxtaari fii chahri safar gis nga ko ki nga xam ne ki dañ koy génne ne dañ ko jàpp moom mu daal di wax bés bi nga xam ne bii moom lañ ko génne muy bésab gaaw lañ ko génne bésab gaaw boobu tombe nag fukki fan ak juróom ñetti laan ci weeru safar wi nga xam ne bii moom la ñu nekk mu dëppook atam jay sachin muy 1313 ci atum gàddaay ga waaye ne ne bés boobu ma génn muy fukki fan ak juróom-ñett ci safar la ma ca yàlla yi defal rek mooy li xidmatil muxtaar yi ngir damay dem ngir liggéeyali ku ñu tànn ka muy muy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax am na liggéey boo xam ne bii war nag koo liggéeyal te loola maanaam doon liggéey boo xam ne bii buy mën a sottee fii ci réew mi la kon yàlla faaw mu defal ko ab sabab boo xam ne bi mooy waral maanaam mu génn réew mi daal di dem ca foofee nga xam ne fii fa la nekk sax fa lu mat juróom-ñetti at yoo xam ne lu manqué tuuti la ngir liggéey ba la mu fa doon liggéeyal yonente ba moo tolloog loolu maanaam mu ak war faa am loolu ci jamono joo xam ne bii ca la liggéey bay sotte ba tey li ñu wax ne làmbutu dem nga xam na ci lépp maanaam nu muy demee ca dem gaag nam fay nekkeeg muy dikkee yépp dafay wax ne wa adxala al ilahu fi xulubi man tasababu fi naqlihi daaka zaman ixraajahu ila albilaadi naaiya wa naala fiha fawqa samai saariya gis nga ci sëriñ mi ne ne wa adxala al ilahu yàlla moo tàbbal fi xulubi man tasababu ci xool yi ñi nga xam ne ñi ñoo sabab fi naqlihi ngir bëgg ko doxal génn ko ci réew mi zaaka zaman ca jamono ñoojee yàlla maanaam moo tàbbal ci seen xol ixraajahu ilal bilaadi naaya ne nañ ko génnee yóbbu ko ci réew yi nga xam ne yii mooy réew yu soriya waaye gis nga ne ne réew yooyu ba mu ca demee war naa la fiiha fawxa samay saariya waaye sëriñ bi ba mu demee ci réew yooyu yàlla may na ko fa ay xewal yoo xam ne yii maanaam kawe na dégg ak saariya ga dégg ak saariya ga nag comme ma sàmba ni mu ko waxoon keroog suñu Aline Badara Ndiaye maa ngi jéggalu bu baax a baax bi may ziyaare mbokk yi sama xel dafa xaw na faa ji waa yow kenn jiitu la ci ziyaar bi nag yow suñ Badara Njaay ñoo ngi jéggalu bu baax a baax a baax kero moom itamit def na ay leer yu am solo solo ci xikmatul yawmi boobu nga xam ne bii moom la ma sàmba defan te moom itam mu def ci ay leeral yu am solo solo suñ badara ñoo ngi jégg bu baax a baax a baax waaye nañu nga xam ne xel mooy faay rek man waaye kenn jiitu la ci ziar boobee gis nga sama saar ya xam naa mbokk yi xañ na dinañ ko war a mën a gën a leeralaat waaye mooy jamono Seydina Ali yaakaar naa wala Omar kenn la ci ñoom dafa nekk ci jumaa ji di xutba nekk saariya ci saxaaba yi la nekkan waaye dem ci tukki bu sore sore maanaam doon fa wuti marchandise léegi saariya moom bi mu demee wuti marchandise ba ba dëpp fekk diggante bi mu toll ak Madina mat na doxab ñeenti weer waaye Seydina Omar na ci jumaa ji di xutba seen saariya agresseur yi nar koo xatar mu wax saariya ne ko maanaam laqatul ci xeer yi bala la saay saay yi di dogale di la gaañ wala ñiy jël sa marchandise ñu fekk na booba seen diggante mat na doxam ñeenti weer xam naa dañuy bañ mu gën a gudd noonu ko waaye bu ci mbokk yi kii rek samo saariya googu ñu gën ko leeral bu baax a baax ci digganteem ak Seydina Ali moom ne ne rek Xaadimu Rasuul ne ne tukki gii mu tukki maanaam amee na ca lu ëpp la nga xam ne lii moom mooy dégg ak saariya googee ba tey it dafay jëmm dafay waxaat ne wa jaala almuxtaaru sallallahu alayhi bil ali wa man waalahu lahu xijaaban maanian min addarar suma lahu xaalam si la ataxsal garar dégg nga jëmm dafa wax ne sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo waajal xaadimu rasul ngir mu dem ci tukki googu nga xam ne gi tukki xéwal la rek ca xéwal yee ñu waxan fale ca kaw ndax ne ne wa jaalal muxtaaru sallallahu alayhi wa man waalaahu sayyiduna Muhammad moo defalal xaadimu rasul lahu xijaaban maanian min ad-darar defal ko kiiraay loo xam ne maanaam moo koy aar ci lépp loo xam ne lii lu ko nar a lor la suma lahu xaalam si laa tax sal xaral ginnaaw bi mu ko defalee kiiraay ko nga xam ne gii da koy sàmm ba kenn du ko mën a lor moom xaadimu rasul ci dem ko nga xam ne gii moom lay dem muy tukki gii da ko ne maanaam sayyiduna Muhammad dafa xaadimu rasul ne ko doxal dem te bul ragal ñi nga xam ne ñi ay waraatekat lañu bu ko defee gis nga ci xaadimu rasul kon dafa amal lu leer nañ ci dem gi nga xam ne gi moom lay dem ak dikk gi nga xam ne gi dina ci dellu si ak xiiwal yooyu nga xam ne moom la ko ca yàlla defal taxan muy wax ne lii kun bi kun sarmadan wajal masiriya da jawfal fara lil wara misalal mahaar yi ni yow yàlla maa ngi lay ñaan nga nekkal ma ci ba ci darajaay kun te loolu nekk lu sax faw tey dox gi nga xam ne gii maa ngi koy dox di ko tukki jëm ko ca réew yu sori ya maa ngi lay ñaan nga defal ma ci xéwal yoo xam ne day mel ni warab woowu nga xam ne bii fara la tudd ñu naan jaw fal fara waaye bu ko defee xéwal googu ma bokk ko mbindeef yépp yi nga xam ne yii ñoo ma topp ci li nga xam ne lii moom lay digle di ca di ko def waaye itam di bàyyi li nga xam ne lii moom lay tere képp ku tax nekk ci yoon woowu rek maa ngi lay ñaan nga boole ko ci xéwal googu gis nga fara boobu keroo suñu Masamba suñu Badara Njaay maanaam def nañ ci ak leeral ko am solo moom itam gis nga dañ naan as-saydu kulluhu fii jawfil fara comme nañ ko leeral ak keroo bi defe naa ku déglu xekk ma boobu keroo déglu nga ko ci suñu Badara Njaay ak suñu Samba comme fara boobu nga xam ne lii dañ ne lépp loo xam ne lii dañ koy rëbb ci àll bi rek maanaam fekk na fara moom mi ngi ci loola nga ca biiram maanaam la nga xam ne lii moom lay jariñ daal fara moom fàdd na rab woowu ba lekk ko ba yàlla defal ko nga xam ne boo jàppee fara rek moom maanaam wépp xeetu rabu àll rek lu mu am ci vitamine ak lu baax rek maanaam am nga ko bu ko defee loolu itam bokk na ci sëñ bi naan ijaal rujuu'i ila xawmi saadatana wa takfina yawma jamee xalqi niiraana yow yàlla maa ngay ñaan dellu si bi nga xam ne gii dinaa ko dellu ci sama taalibe yi ci sama xaw sama sama gaay yi mu nekk suñu texe àdduna ak àllaxira tey maa ngi lay ñaan yow yàlla su bés denc ba ba nga dajale jaam yëpp yàlla nag nu ko fegal kër googu nga xam ne gii mooy kërëb sawra amin yaa rabbal alamin kon ñaan googu ak yeneen ñaan yi ci suñ bi ñaan yëpp ñaanaan ko yàlla defal bi jaay sidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu dellu ziyaar ñëpp rek ndokkeeraat bu baax a baax di ñaan rek bokk yi comme ni ko suñu Badara Njaay defoon keroog suba bu ñu xëyee rek maanaam ñuy safar ba keroog ñuy àgg ci bés nag jàmm yàlla nañ ci yàlla àggale di jaay sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax may ñu ay xéwal yoo xam ne yii dinañ ci taxaw suñu kéemtalaal kattan ci li nga xam ne lii moom la sëriñ bi bëgg ñu taxaw ko ci bésam bu mag moom nga xam ne bii moo nekk ci suñu kanam yàlla nañ ci yàlla àggale jàmm di jaay sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon ñu jéem a jublu ci fatwa bi rek muy tontu laaj yi su ko defee bokk na ci ñi fi rotal laaj tey muy suñu mag sëriñ biir moom dafay laaj man nasiya sujudal xabliya xatta sallama koo xam ne kii dafa fàtte ab sujudu xabli maanaam dafa am lu mu wàññi si julli ga war na sujud xabla maanaam wala muy sëlmal fàtte nag sujud boobu wala ñaari sujud yooyu ba sëlmal na lay def su ko defee sujudu sahwi dafa yaatu lool waaye tamit lu jar di nafar la di ko xoolaat bu baax a baax ndax dafa xaw a sew lool ci nit ki buy julli ay njuumti dab ko ca ni ñuy defee sujud boobu daal xaw naa jaxasoo lool su ko defee war nañ cee góorgóorlu bu baax a baax ba di ci fexey rek di ci góorgóorlu suñu kemtalaayal kattan comme lii mu laaj nii dañuy wax ne la tabtulu salaatu bi tarki sujudin xabliyin an sunnatayni wa sajadahu in kaana xariban wa illa saqata sujudu dafay wax ne maanaam ni mu ko waxee moom mooy ki fàtte ab taaye ci julli xam nga kooku dafa wàññi dafa war a def sujud xabla salaam léegi nag sujud boobu mu fàtte ko ba sëlmal kon foofu dañuy gis ne maanaam sujudu sahwi li koy waral mooy maanaam ku bàyyi ñaari sunna xafiifa wala benn sunna mu akkada maanaam ñaari sunna yooyu gis nga ko li tax ma ne sujudu sahwi dafa sew dafa am ñaari xaaji sunna yoo xam ni moom la sunna mu akkada mooy sunna bu dëgër boo ca bàyyee benn wala nga yokk ko day waral sujudu sahwi waaye sunna mu xafiifa mooy sunna bu oyof ni ñu ko mën a waxee boobu ñaan nga ci bàyyi wala nga yokk ko sujudu sahwi dog laa war nee na nag julli ci boppam daal bu fekkee ni da nga bàyyi ñaari sunna xafiifa mu nekk sujud xabli mooy sujud bi nga war a ne sujud bala ngay sëlmal la ko sabab maanaam la ko waral mooy da nga wàññi ñaari sunna yoo xam ne yi yu oyof la ne ne fàtte ko ba bàyyi ko du yàq julli nga bu fekkee ni da nga sëlmal ndax ne ne wa sajadahu in kaana xariban ne ne sujud boobu dafa war a nekk bala ngay sëlmal waaye boo ko fàttee ba sëlmal te teel koo fàttale maanaam da ngay daal di dem sujud ak sujud boobee bu fekkee ni dafa jege wa illa saxata sujud waaye ne ne nag boo demee ba mu yàgg nga doog koy fàttaleku wala nga dem ba dugg ci naafi la comme ni mu ko waxee moom bu booba ne ne sujud boobu day rot maanaam da lay wàcc waaye nag du tax julli ga yàqu muy benn tomb kon foofu itam nañ fi am ak dégg ci ne ki war a sujud sujudul xabli mooy dafa wàññi benn sunna mu akkada wala mu wàññi ñaari sunna yoo xam ne yu oyof la yu xafiifa la ne ne su ko fàttee ba sëlmal su ko teelee fàtte ko maanaam day daal di dem sujud ko waaye bu demee ba mu yàgg nag mu dem ba nekk ci leneen wala mu génn jàkka ji su booba sujud boobu day rot dara tax julli ga yàqu maanaam sujud boobu mu bàyyi du yàq julli ga ñaare bu moom mu daal di wax ak wa man nasiya sujudal xabliya xatta sallama sajada in kaana xariban mooy la doon waxee rek mooy koo xam ne ki da ngaa bàyyi da ngaa fàtte sujudul xabli mooy sujud bi nga war a ne sujud bala ngay sëlmal ba sëlmal nga fàtte ko ba sëlmal ne ne soo ko teelee fàtteku da ngay daal di sëgg daal di koy sujud wa in taala aw xaraja min al masjidi batala sujud wa tabtulu salaat waaye nee nag su yàggee maanaam bi mu ko fàttee nga xam ne bala nga sëlmal nga ko woon sëlmal waaye fàtte nga ko tey bi nga sëlmalee maanaam teelewu ko fàtte bu yàgg na lool wala nga dem ba génn ca jàkka ja dana su booba sujjo boobu mu day yàqu maanaam boo ko sujjoo dee dootu baax wa tabtulu salaatu ma waaye nag julli gay day yàqu waaye nag maanaam loolu dane fekkee ni da ngaa waroon a sujjoo ci loo xam ne lii maanaam dafa ëpp ñaari sunna ya waxantee moo tax ma ne nañ ko teelu bu baax jéem ko ràññee bu baax fee dana lool boo bàyyee ñaari sunna xafiifa wala nga yokk ko danga ko war a sujjóot waaye soo ko bàyyee ba mu yàgg nga sëlmal bàyyi ko ba mu yàgg wala ngeen jàkk ga sujjóot boobu dalay wàcc maanaam julli ga dina baax waaye dana itam boo fàttee ñetti sunna xafiifa wala lu ko ëpp wala ñaari sunna ma akkada wala lu ko ëpp ba sëlmal dana mooy itam boo ko teeree fàtteku da ngay daal di sujjóot sujjóot boobu boo sëlmalee waaye nee na nag bu yàggee nga dem ba yàgg comme ni mu ko wax ne dem na ba ju ba dugg ci naafila doog koo fàttaliku kon dañuy mën a jàpp ne diggante boobu yàgg na kon li mu wax ne ndax day dagg naafila ga wala déet déedéet du ko dagg day continuer naafila googee te xam ne julli googu mu doon julli bu fekkee ni ñetti sunna la wala mu ëpp ko su boobaa sujjóot boobu day yàqu ndax am na diir bu yàgg wala mu génn ca jàkka ja su ko defee day baamuwaat julli goo nga xam ne bii moom la doon julli kon foofu yéen nañu jàpp ne nag balaa julli ngay yàqu ci maanaam yàgg na te sujjóotu ko mooy day fekk ne bàyyi na ñetti sunna waaye waxat naa la feene la su ko bàyyee maanaam su bàyyee ñaari sunna xafifa wala benn sunna mu àkk da fàtte ko ba mu yàgg su boobaa sujjóot bi da koy wàcc waaye tam julli ga dana baax kon waaye diggante boobu nag nañ ko ràññee bu baax a baax bañ koo jaawa le su ko defee loo lii ma lay wax nii ci ci fàtte sujudul xabli bii ci ñaari tomb yooyu maanaam ñu maa ngi ko sukkandiku ci téere boobu bu ñuy wax al axdari yu téere al axdari yu boobu nga xam ne bii fiqh la ca al imaamul axdari di jàngale su ko defee defe naa mooy téere bi nga xam ne bii sax naa yaakaar naa mooy moom la sëriñ Bamba moom la Seexu Xadim def al jawharun nafis maanaam def ko ay bayt su ko defee boo demee ci al axbari wala defe naa al jawharun nafis boo ko xoolee sujudu sahwi nii la ko borom laxdar yu waxe ci ñaari tomb yooyu su ko defee beneen laaj bi mooy dane man lahu usrun anil jumaati mata yusalli zuhra koo xam ne kii dafa am ngàntal maanaam mënta julli ji ak juma nga xam ne moom julli tisbaar moom la war a julli te dafa làng ak jumaa ja léegi ne ne kañ lay julli tisbaar moom maanaam ne ne bu waxtu tisbaar boo jotee day dem daal di julli tisbaar ja doonte jumaa ja julleeguñu wala day xaar jumaa ja lu mu tardé tardé tardé maanaam mu xaar bañ julli ba pare muy doog a julli tisbaar dañ ko naan yajuusu li hada al maaduri an yusalli zuhra baada duxuli waqtiha dañ ko ne may nañu ki nga xam ne kii am na ngantal mënta dem julli ji ak juma maanaam fu waxtu tisbaar wa jotee rek maanaam mu julli ko ci waxtu dégg nga wa in wa in lam yusalli naasu ak jumaata doonte nit ñi jullee bu ñu julli ak juma kon gis nga ki nga xam ne kii am na ngantal mënta dem julli ji jumaa ya ndax xam nga jumaa ya waaj ma day yàgg naa dem ba fi tisbaar bi jógee maanaam julli ajjuma ga weesu ko lu yàgg yàgg lu bëree bëree bëri kon ne may nañu ki am ngànt ba mënta julli ji te mu julli tisbaar bu fekkee ni waxtu tisbaar wa jot na doonte nit ñi jullee bi ñu ajjuma waaye nag dafay wëlbatikuwaat daal di ne wal afdalu lahu in kaana yarju zawala usrihi kamaridin yumkinu an yabraa wa yatamakkana min addahabi liljumaati an yantadira xata yafruha annaasu min aljumaati dene nag li gën ci waajooju mooy bu fekkee ni ngànt gi mu am yaakaar na ne bala ñuy julli julli bi ajjuma maanaam mu dañ ci diggante bi maanaam bu fekkee ni lu mel ni feebar la bu dee ko feebar la maanaam mu yàgg ne ndax maanaam feebaram bi gën mën naa am bu xaaree ba ñuy julli ajjuma feebar boobu mën na wér ci diggante bi ngir mën a dem julli ji nag ci julli gi àjjuma ga la gën ca moom mooy mu xaar ba nit ñi julli ca jumaa ji julli gi àjjuma ga su fekkee ni ngàntam googu dañu nga xam ne feebar la mënta dem bu boobaa mu doog a julli julli tisbaar jooju te nag wa amma in kaana laa yarju zawaala usrihi kal marati fa salaatu fi awwali waqti xéena yéen axtal nee nag bu dee ngànt ga ngànt la boo xam ne gii leer na ko ne moom ba kere ñuy julli julli ajjuma ba ngànt boobu mënta dañ ndax dafa am ngànt yoo xam ne moom day continuer du dañ lu mel ni jigéen xam nga moom teguñu ko jullik ajjuma maanaam am na ngànt bu julli ne du dañ seen julli ay julli àjjuma ga nee na li gën daal mooy su waxtu tisbaar wa jotee rek maanaam mu daal di julli julli tisbaar ga waaye mu fa nekk di xaar julli àjjuma ga ndax julli ga day xaw a sore waxtu bi nga xam ne bii ci la waxtu tisbaar wi jotee kon daal kooku nga xam ne kii am na ngànt may nañ ko maanaam fu waxtu tisbaar wa jot rek maanaam mu julli su fekkee ni jumaa ja day tardé waaye bu fekkee dafa am ngànt boo xam ne gii nag yaakaar na ne bala ñoo julli ak juma ngànt boobu dañ ngir mu mën a dem maanaam bu fekkee ni feebar la ne la gën gën mooy mu xaar ba ñu julli su ngànt ga dañu mu doog a julli julli tisbaaram waaye bu dee lu mel ni jigéen bi nga xam ne ngànt boobu dañ maanaam bu dee loolu ngànt boo xam ne gi leer na ko ne du dañ nag moom la gën ca moom mooy fu waxtu tisbaaroo jot rek maanaam mu daal di julli tisbaaram te bañ a xaar waa julli ajjuma ga beneen laaj bi ci topp mi ngi jóge ci soxna Cuba Jaay koy siyaar bu baax moom dafay laaj xukmu nafli baada azani fajri wa baada azani salati subh day laaj ci atteb daal kii naafila ginnaaw bu ñu noddee nodd ak yeete gi muy nodd ak fajar gi bala ñuy julli suba waaye ginnaaw bu ñu noddee salaatu yi tamit naafila ci waxtu yooyu lay laaj atteba dafay wax ne moom day def bu ñu julli bu ñu noddee nodd bi yeete boobu maanaam mu daal di julli ñaari rakka suñu salaatoo muy naafila ñaari rakka doog a julli julli suba ñu ne ko doo def noonu xanaa kay loolu mën na loolu lu mënu la lu baax la lu lu mën a nekk la maanaam bu ñuy bu ñu noddee ngir nodd ak yeete bu la neexee diggante boobu ba fekk ñu salaat loolu fi mën a naafila ci naafila bu la neexee mën nga koo naafila waaye tamit bu la neexee maanaam bala ñuy salaatu ñaari rakkaay fajar yooyu mën nga koo julli ci da nga koy yéene garal kooku yéene ba xam ne maanaam lii moom ñaari rakkaay julli fajar gi laa koy defal laa koy yéene bala ñuy salaatu su la neexee mën nga ko waaye itam su la neexee mën nga naafila wala ngay toog di def say zikrullahi ba kere ñuy salaatu bu ñu salaatoo nga daal di jóg julli ñaari rakkaay fajar daal di doog a wëlbatiku nag daal di julli julli farata gi muy julli suba gi kon daal naafila ci diggante boobu daal bu ñu sala bu ñu ju- noddee ngir yeete bu la neexee lu la neex diggante boobu mën ko te naafila waaye su la neexee it bala ñuy noddu noddu salaatu gi mën ngaa julli ñaari rakkaay fajar ya suñu salaatoo nag su boobaa dootoo ko julliwaat waaw doo ko baamu fekk julleen nga fajar bala ñuy salaatu su ko defee suñ salaatoo lay nga julli julli farata ga su ko defee ñaari rakkaay fajar yi tamit ku mu raw ba ñu julli julli suba ga su boobaa maanaam bu fekkee ni da nga ànd ca julli ga maanaam ca julli mbooloo ga yow ñaari rakkaay yooyu raw na la boo jullee su boobaa rek léegi doodoo ko mën a fay da ngay xaar ba jant bi fenk ba naafila jot maanaam ba waxtu dagana naafila jot maanaam bu jant bi yëkkati ko daal ba mu leer na ne fi mu ne nii moom mënees na see naafila nga doog a fay ñaari rakkaay fajar yooyu ndax naafila yëpp ku la ci raw doo ko fay ba mu des ñaari rakkaay fajar yooyu ñaari rakkaay fajar yooyu rek lañ ne ku mu raw mën ngaa xaar ba bët set ba jant bi jóg ba ba ñu mën a naafila nga fay ko ba keroog tisbaar bi jot waaye geneen naafila moom bu la rawee doo ko fay kon moom itam ñaari rakkaay fajar mënees na ko fay ci maanaam bu fekkee ni da nga koo julliwut ba ñu julli suba moom doo doo ko mën a julli fekk jant bi fenkut waaye su jant bi fenkee nag may nañ la bu naafila jotee nga mën koo fay ba keroog tisbaar bi jot kon laajam boobu it noonu rek lay demee muy wàllu naafila daal moom waxtu wóor dagana naafila moom loo ca mën a naafila maanaam baax na diggante boobu nag muy fi ñuy nodde noddu bu yeete ga ak fi ñuy salaatoo mën nga fi naafila ay naafila spécial waaye bu la neexee bala ñoo salaatu nga julli sa ñaari rakkaay fajar suñu noddee noddu salaatu nag dootoo ko ju doo ko julliwaat waaye da ngay daal di julli julli farata ga bu ko defee mu daal di lay wàcc beneen laaj bi ci topp mi ngi jóge ci al oustaz Serigne Ali Badara Ndiaye koy seer bu baax a baax ndokkeel di ko taxawaayam ci bëgg lu baax ci dundal diine ci leeral yu am solo yi nga xam ne yii da koy def ci njàngaleem bokk yi waaye tamit laaj yu am solo yi nga xam ne yii dañ koy tàbbal ci biir liggéey bi nga xam ne defe na doonul ne boppam rek moo tax mu koy tàbbal ci biir waaye bëgg cee laabire yeneen mbokk yi ñu bëgg cee jariñu rek xam naa moo ko ca gën di xiir kon ñoo ngi ko ci ndokkeel bu ziar bu baax a baax a baax moo gën nag ci wàll googu ak weeru safar wi ñu dugg leeral yu am solo yooyu mi ci def ci fan yële lépp doon ci safar gi loolu lu ama am solo la na ci ñëpp jàpp moom suñ Badara Njaay day laaj xokkum man yatruku rukunan min arkaanil islaam kooku xam ne ki ne ne ab jullit la waaye am na benn ponk ci ponk lislaam yi maanaam mën na koo def waaye du ko def ne ne kooku lan moo def ak keem su ko defee suñ badara dañu koy wax ne ko ki nga xam ne kii ni ne ne ab jullit la maanaam bala ñuy nungu njullitam googu maanaam ponk lislaam yi juróom la yépp day nungu ne maanaam lislaam tëral na ko dafa war ab jullit su boobaa ak njullitam doo ko mat su ko defee ki nga xam ne kii nag day bàyyi benn ponk ci ponk yooyu maanaam ab atte day daal di nekk ñaari atte lay doon atte bu njëkk mooy ki nga xam ne kii dafa weddi ne am na ponk boo xam ne bii daal bokkut ci lislaam maanaam gëmut ne bokk na ca maanaam mu mel ni ku noon julli daal maanaam amut wala natt asaka amut wala koor woor weeru koor amut wala añ makk amut wala tudd ñaari baati seere yi amut ne ne kooku nga xam ne ki moom dafa weddi benn ponk ci ponk lislaam kooku maanaam bokkut ab yéefar la maanaam ak njullitam matut muy benn atte bi keneen ki nag moom itam li def atteem mooy ki nga xam ne kii nungu na ponki lislaam yépp ne am na muy juróom yépp am na waaye da cee am boo xam ne bii du ko def ci coobareem waaye weddi wut ne am na maanaam gëm na nungu na ne am na waaye dafa bañ bañ koo def ci coobareem su boobaa loola dañu koy tegal ne ko moom ab atteem nii lay demee su ko defee ci li gën a gaaw rek ñuy jël téere bi nga xam ne bii mooy téere Cheikhul Xadim bii tudd tazawudu shubbaani ila tibaail maliki dayyaan ci bunt bi nga xam ne bii ma ngay wax ci julli muy faslun fi salawaatil xamsi gis nga si badra ak mbokk yi dañ ne sëriñ bi dafay wax ne qad saxa anna salawaatil xamsa faridatun xukman waxiidum labsa sëriñ bi dafay wax ne wér na cëng ne juróomi julli yi day juróomi julli yëpp ay farata lañu ci bu ñuy delloo ci atte maanaam atte julli julli julli farata sëriñ bi dane maanaam farata la daal di ci teg ne ne waxiitum labsa maa ngi leen di ñaanal yàlla na leen yàlla fegal ak lënt ba ngeen di sàggane julli amin maa ngi leen di ñaanal yàlla na leen yàlla fegal ak lënt ba ngeen di sikki sàkk ci julli ba bañ a julli nene atteb julli nga xam ne bii farata la nag dafa sax ci zikri ci alquran wa sunnati ak sunna wal ijmaa ak dajale ak borom xam-xam yëpp ñetti atte yi moom fu mu dajee maanaam loola moom farata ja maanaam kenn dootu ko napp natt bi muy alquran saxal na ko ne farata la sunna saxal na ko borom xam-xam yëpp d'accord nañ ci amul kenn koo xam ne kii àndoo ca kon sëriñ bi dafay wax ne faman yakun minha alam tinaayi képp koo xam ne kii nag da nga ne jullit ka daa di weddi ne julli maanaam amut maanaam bokk ci bonki lislaam yi maanaam jaxdan laha ngir weddi ko ne ne képp koo xam ne kii da ngaa bañ a julli ngir da nga koo weddi foofu wa kal murtad di ne ne kooku mi ngi mel ni ku murtad wala iyaasu billahi yàlla ci yàlla mosal mooy koo xam ne kii génn na ci lislaam bokkatu ca dana nag fil xukmi yustataabu jiimal addi ne ne ki nga xam ne kii wedd na ni julli amut lañ koy atte mooy dañ ko koy tuubloo ñetti yoon dañ ko naan sëñ bi dañ ko naan diw julli gii nga weddi tuub ko bañee ñu waxaat ko ni ko ay teg koo tuub tuubal julli gii ngay weddi ne amut bu bañ a ñu waxaat ko ko ne ko tuubal julli gi nga xam ne gii da nga ko weddi muy ñu tuubloo ko ñetti yoon sëriñ bi ne fa in yatub yutrak su tuubee ñu bàyyi ko duñ ko def dara maanaam tuub na nangu na ne léegi julli am na wa in lam yatubi waaye sëriñ bi nee ne bu fekkee ni nag tuubut lànk na rek ne maanaam julli moom bokkul ci bonki lislaam yi naqatulhu bi sayfi bi dar bir raqati ne ne kooku lawar mooy dañu koy rey ci jaasi la ñu jël maanaam dagg loos wa maanaam daggale baat ba ak bopp ba maanaam ne ne loolu mooy at bi nga xam ne bii maanaam dane julli bokkul ci bonki lislaam yi kon gis nga kooku dañ koo war a rey la wax noonu ne fu ñuy àttee sharia la ku weddi ne julli am julli amul da nga ne jullit nga bu baax dañ koo war a rey te ne nag walay sa yorusalu te nag kooku buñ ko rayee deesu ko sang dañuy sang jullit bu fi jógee walay sa yukku fanu deesu ko sang sang wala lahu salaatu deesu ko jullee lay sa yuddu fanu fil muslimine deesu ko suul fa ñu suul jullit ña deesu ko suul fa ñuy suul jullit ña kon bu baax nuñ ko def ne ne fal imaamu imaam ja yursilu saxsan yu waar yi day yónni jënn waar rek ne ko demal ba ca digg àll ba maanaam nga gasal ko kàmb gu yaatoo yaatu daal di koy bëmax mu daal di daanu ci biir kàmb ka maanaam du doon koo xam si sax dañ koy meeb di ko tëral ca biir waaye dañu koy wutal kàmb gu yaatu nga xam ne bii dañ ko ciy bëmax rek te ki ko ciy bëmax day fexe ba maanaam na muy tëddee maanaam du tëddee comme ni ñuy tëralee jullit ci biir bàmmeel maanaam duñ ko jubale benk wala yustaqbalu qiblatuna bihi te ne dañu fexe ba buñ koy daane ci kàmb ga maanaam bu mu jublu penku wa maalun yaxsudu jëpp ala joo xam ne ji waajooju am na ko te weddi julli bañ rey ko ne ne yu jaalu fii bayti maali muslim ne dañ koy def ci kër kër ga nga xam ne gi fa la ñu dajalee alal li jullit ña gis nga kon loolu mooy benn at ma la wax ne ki nga xam ne kii day bàyyi benn ponk ci ponk day dafa weddi benn ponk ci ponk lislaam yi bu boobaa am yéefar la léegi lii moo di atteem maanaam bu dee julli gi la gis nga noonu la ko suñ bi attee waaye bu dee ni koor lay dem gis nga ba tey day nekk koo xam ne kii ab yéefar lañ koy jàttee dañ ko war a rey bu ko defee beneen acte bi ci des mooy ki nga xam ne kii moom nangu na ne ponki lislaam yi yooyu juróom yëpp nangu na ne moom mooy ponki lislaam ab jullit da ko war a jëfandikoo waaye dafa lànk bañ koo def maanaam am na bu mu ca nangu def foofu la suñ bi wax ne wa man aqarra bil wujubi képp koo xam ne kii nag saxal nga ne julli war na wala beneen ponk ponki lislaam yëpp maanaam nangu na ne am na lu war la wamtana min fi'liha mu terewu nag daf ci julli lay wax julli la koy misaal mu yóbbaale yëpp rek wamtana min fi'liha te terewu maanaam def ko maanaam mu bañ a julli wala lahu uzrun yaqa te amul benn ngant boo xam ne bii mën na caa sukkandiku jàpp ca fa innahu ne ne waajooju mu axarun dañ koy yeexe maanaam dañ koy bàyyi xataa ya ji waxtu salaati ba waxtu julli jot li xaboolin xadru yi ngir nungu boo xam ne gi yaakaar nañ ne dina ko nungoo julli summata ne ne nag buñ demee ba julli jot yuumaru ñu digal ko julli ne ko nag jógal julli illaa an yabxa miqdaaru rakaatin bu bañee nag dañu koy bàyyi ba julli ko des lu toll ak benn rakka boo xam ne bii la jiitu ca rakka ba yépp sax dem na ba nga xam ne bii lu mënta ñàkkalal rek moo des ca rakka bu muy maanaam dem nañ ba ca sujjóot yu mujj yi sujjóot nañ ko ba nekk ca taaya baak yooyu mooy looy la xay miqdaaru rakaati ilaa an yabxaa ba julli ga des miqdaaru rakaati lu tolloog benn raka faqat dong laa safa waaye doo ca boole sax lay jiitu ca raka ba bi sajj day xaar maanaam nga xam ne dañuy dem ba toll ci ñaari sujjóot ya min darurati ngir lu mënta ñàkk xam ne nag léegi nag kon julli gi jeex ci raka bu mujj ba dem nañ ba ca sujjóot ya mujj ya bilaa faatiha nga xam ne faatiha ja bokkatu ca walaati daalin waaye tamit rukkoo nañu ba siggi fa in abaa ne na waajo su bañee lànk ne du julli ñu bàyyi ba julli gi tollu foofe ñu ne ko jullil mu bañ xatala hoosul amri ka yor mbir ma ka yor ndigal la na digle ñu rey ko bis say fi yaa si moom itam xatta ne na nag rey googu nag rey ak géteen ko la maanaam rey ak jullit boo xam ne bii dafa weddi maanaam dafa nanguuta def benn ponk ci ponk lislaam lay doon waaye du doon du na xas li kufrin waaye du doon rey ak ku weddi maanaam doon ab yéefar walaw te na dama sëriñ bi ne nag waa jooju nag bu demee ba jaas ja teew ñu war koo rey muy rëccu waxaala afal mu ne dinaa julli li xaw fi mahlakin ngir ragal ne rey gañ koy rey fa lay sa yëpp balu deesatu ko dum faaw dañ koy rey rek moom itam wala yali salaatuhu du fadlin te ne kooku it nag danañ ko sang sang dinañ ko sang dinañ ko sang dinañ ko sang dinañ ko jullee fa ñuy suul julli ña it lañ koy suul waaye nag ne ne wala yali salaatuhu jullim googee du ca bokk su fadlin ku ñu yaakaar ak mbaaxam bu boobaa dañ naan képp koo xam ne kii yaakaar nañ ne ku baax ak dañ ko naan bul dem ci julli googee bul bokk ca julli nga li ko yekkuuna ngir loolu nekk zaajiran lil misli jàjj keneen ku nar a mel ni moom waaw xabru ne ne bàmmeela waajoo itam laa yut mosu dee su ko marmar maanaam dee su ko maasale comme nañu defan kële nga xam ne kii moom dafa weddee bal yu sànnam day waaye nag dañ koy jegénal comme ni ñuy def bàmmeel yi jullit yi li annahu ndaxte moom kat muslimun ab jullit la bi la xilaafin ci lu dul benn wute kon laajam bu am solo boobu daal loolu mooy li nga xam ne lii moom lañ ko ci tontu ñu demee ci tazawudu shimal ci faslul fi salawaatil xamsi daal sëriñ bi moom noonu lañ fa attee ki nga xam ne kii dafa weddi benn ponk ci ponk lislaam yi moom ab yéefar lañ koy jàppee yoon da koy rey reyab ab yéefar bu ko defee ki nga xam ne kii gëm na ne ponk yépp am na waaye dafa bañ am bu mu ca du def ci coobareem ne ne moom itamit du ñu jàpp ne ab yéefar la waaye ku ku jalgati sharia la bu boobaa moom itam dañ koy war a rey ba defee ñoom ñaar ñëpp dañ leen di rey waaye nag yéen a fàttali bopp ndax kii rey bi yéefar lañ koy rey waaye kii reyab jullit bu jalgati benn bokk ci bokk lislaam yi lañ koy rey su ko defee bon loolu daal mooy li nga xam ne nii ci sukkandikoo yeneen bokk yëpp itam noonu lay demee ak i atteem ndax gis nga bu dee koor gi fi mu nit ñi koor ku ko weddi moom itam day doon ab yéefar comme ni ko ni ñu koy waxee waaye gis nga bu fekkee ni nag gëm na ne koor moom ci fonk yi lislaam yi la bokk gis nga dañu ne koor kuy woor juum donc su boobaa da ngay continuer si bés bu dafay benn bés rek koor nga jeexee waaye ku ku tey bañ a woor benn bés boo xam ne bi yaa ko tey bañ a woor tax moo lenn ngànk te ne bés boobu maanaam dañ la cay teg ay daan yoo xam ne yi yaari weer nga ko war a feye gis nga moom itam gis nga ab àndeew ki ko weddi ne bokku ca tey doon ab yéefar dañ ko war a rey comme nañu def kee waaye ku ko tay bañ caa woor benn bés nga tay ko te amoo lenn ngan ko bés boobu lislaam dal charia dala naan da nga ko war a fay muy kafaara nga war ko wooral ñaari fan ñaari ñaari weer benn bés bu nekk boo xam ne bi ak jullit dong na ko ci koor te moo ko tey ñaari weer moo ko war a fay yoo xam ne da nga koy tegale woor ko booy boo doon woor ba woor ñaari weere ba mu des ñaari fan nga dog su boobaa li nga wooran maanaam effacé wu na ñàkk nga ko da ngay tàmbaliwaat kon jullit daal day war a fexe ba dul dog jullit yal na yàlla loolu defal dafa liggéey seenam sallallahu alayhi wa sallam